arrêté fi nga xam ne daanaka moo di ci Feeling Dakar TV euh, sëñ Xaadim dañuy artuwaat rek par rapport ak jëm ci ki nga xam ne moo di Adji ne moo di jigéen mu doon tuumaal ki nga xam ne moo di le président Ousmane Sonko depuis boobaak léegi kenn déggatul daanaka mu wax wala kenn déggatul euh, jëm ci wàllum euh, dossier am amee loo ciy wax rek yaa ngi wax ne ma kii di Adji dafa mel ni dafa bëgg a bokkaat ah, ci langue politique bi wala dafa bëgg bokkaat nit ñi yëkkatiwaat li noo gisee ni waaw mais je pense que dossier bi laay ni ko nekk gis na li ci am. Mhm. Euh, dossier la boo xam ne mu ngi déparé ci les échos moo ko njëkkoon génnee. Mhm. que ne y a un opposant sénégalais bu ñu jim lu jëm ci wàllum viol. Mhm. Euh, c' par la suite qu' on a su que Ousmane Sonko a euh, ci loolale. li ci xew yëpp xew na ci. ñuy dem di dem di gis ay nit yoo xam ne dañ doon wax ne dañuy jàppal tànk. ki nga xam ne moo di Adji bokk na ci Kalifone Sall toog na fi défendre Adji Sarr lu bëree bëri bëri. finalement qu'est-ce qui s'est passé toog na nee na li Adji wax amul. Aïssa yorul vidéo nangam nangam mm. finalement ba ci mujj mooy le cas ki nga xam ne moo di Abdou ak ki nga xam ne moo di le jeune bi nekkoon fi nga xam ne moo di ci boobu le salon mm. mu di Sidi Ahmed Mbaye ci par rapport ak 10 ci ab vidéo boo xam ne dañu koy jaay ak kii ko jënd et cetera ça dire que mm. dañu dem ba quand même de Sénégalais gëmatuñu sax cette histoire là existe donc nag bu ñu demee ba peut état bi jàpp ne am na foo première fois ñu gis un sénégalais wala un politicien boo xam ne askan bi ñooy génnee xaalis di ko corriger au contraire li ñu gis li ñu doon gis à l'époque ci Sénégal mooy ay euh, politicien moo daan dem seet nit génne ab koppar jox ko dem defar ay tiset di mobiliser ay nit mais le cas de Ousmane Sonko c'est c'est diamétralement li nga xam ne mooy le contraire tey Ousmane Sonko ay nit ñoo koy corriger ay Ousmane Sonko tey ay nit ñoo koy jëndal oto Ousmane Sonko ko jege ay nit ñoo leen di aar et cetera ko indi mooy euh,

wax mooy dafa war a leeral bu amee dossier bi na ko indi Mame Mbaye également ci point de presse bu mu doon def ci benn hôtel de la place il a clairement que saa bu Ousmane génnee li nga xam ne moo boobu les rapport moom saa bu génnee boobu saa bu rapport lépp lu mu bëgg mu jox ko su bu génnewu rapport sax is moom Mame Niang toogoon na fi ne ne bu Ousmane Sonko génnewu rapport dina génnee vidéo am diggante moom ak Adji Sarr finalement ñu gis fi ay vidéo yoo xam ne également vidéo yoo xam ne bi mu génnee mhm. ñëpp xam ne ne ay vidéo montage et cetera mhm. ça veut dire dossier boobu dem na ba mu mel ni ab dossier bu bu vide et mhm. ñu jàpp ne état bi loolu mënu ci war a mun a langaamu ne moo di euh, mu ngi ci yoon yóbbu nañ ko chambre criminelle mais avocat yi dañuy attaqué li nga xam ne moo di procédure bi on attend le pouvoir de cassation pour voir est ce que dossier bi également dina am suite logique par rapport ak mais bu ñu demee ba Adji ne ah, dama sonn est ce que jàppaloo ne kii di Ousmane ak ki nga xam ne moo di Ousmane a atte a euh, mhm. ay nit yu bëree bëri ñàkk na seen liggéey mhm. ay Auchan yu bëree bëri si la ko taal mhm. ay ay ñenn ñi si la ñu lafañ ñenn ñi si la ñu ñàkk seen bakkan lu toll ci fukki nit ak ñeent ne ñàkk nañ seen bakkan ci boobu la événement et tout donc état bi wax na ko xam ne moo di enquête mhm. et cetera mhm. mais finalement loolu fan la mujj mhm. ba tey kenn gisul ko nekk loo xam ne également c' est des conséquences néfastes ay jafe-jafe la yoo xam ne askan askan bi jot nañ ko dund excusez donc mu nekk loo xam ne aussi bi ñu ngi laaj à ce que tey ñu leeral bu fekkee ne mbir mi c' un coup monté kii laa fait parce que Adji Sarr également bu moom mm-hmm. aussi dañ koy mujj di ko topp mm-hmm. te Adji tey kan moo nekk si ginnaaw parce que gis nañ tout ce qui tourne autour Gabriel Kane ak ñeneen ak ñeneen ak les audios yi nga xam ne génn na mm-hmm. ak ñi ci tudd ko ne sax même ñu ñooy jàppale Adji Sarr et cetera nekk na mbir moo xam ne ba tey askan bi bëgg nañu xam même bu fekkee ne la quasi totalité di ci li nga xam ne moo di askan bi àtt nañ dossier bi que ne dossier bi dossier bu vide la peut être dañu bëgg ne fukki nit ak ñeent ñàkk nañ seen bakkan ay nit ñàkk nañ si yi nga xam ne moo di seen liggéey yàqu-yàqu yi également bëri lan moo ne ci biir concrètement est-ce am na est-ce amul ku mel ni docteur Alpha gis nga peut tey cette pression wala cette tension bi nga xam ne mu mm-hmm. euh, di ko xottu gerte ay mm-hmm. nit yoo xam ne également seen vie si la yàqoo ku mel nga xam ne moo di capitaine Touré et mm-hmm. gis nañ ko ak ñeneen ak ñeneen mu nekk loo xam ne daal indi na qui était à l'origine de ça lu ci xew Ousmane mhm. Sonko laale na ci wala laalewu ci bu ko defee askan bi aussi xam mais je pense que dossier la boo xam ne fu ñu toll nii du yoon ñu di ko teg rek ci li nga xam ne moo derrière les tiroirs mbirum troisième mandat bi na ko gisee waaw troisième mandat bi je pense que coow li bëri si mhm. euh, coow li bëri si le président la République moo fi toogoon euh, que moom bu defee li nga xam ne moo di ñaari mandat mhm. dafay dem mais gis nañ ko ci 31 a Eh, nee na nii wii nii non que su waxee waaw ñi ànd ak ñoom dootu ñu liggéey euh, su waxee non également ñi nga xam ne dañu ne ci opposition bi également dëkk bi dina xaw a ne ci guuta mhm. mais liñ ci xaw a jaaxal mooy dafa am ñaari sortie mhm. benn bi mu ngi ko amal ci li nga xam ne moo di euh, Dakar li nga xam ne moo di New York Times di benn journal bu nekk